Natal Sa'a Natal Sa'a Sama sekarang ye Dawalal Bail sa khair Boy dawal bul xande yo yo yo yo xamal ni ay doomu adamang.

très bien daf la naan boo ma rombee panneau bi waxul jàllal sama kanam de daf la ni boo ma rombee fa nga war a tourner na nga tourner sa côté bi mu joxoñ du ma wax loolu la la bëgg wax kon bu ma ñëwee ba gis ko fii tourner ci kanamam def naa infraction li nga xam ne moo waral création association bi mën naa ni man maay président bi déjà te man maay fondateur bi créateur bi comme ni ma ko mën a waxee ay jamono dama dan jangé ci ben centre bu nga xamni mi ngi nekké ci booru béré ci camion conteneur yeeg yoy ci route Colobane bi Mariama Niass tout temps dama dan constater ay accident li ñaka xamako waral wala ni koy waxé impolitesse mo koy waral wala lan la wara a doon loolu inspiré ma ma pourquoi pas xeyna ñun amna as tout lu ñu xam xeyna buñ ko ak nit ñi du ñak ñun dinañ len doli ñom tamit dinañ ñu doli ba tax ñu sos association bi ngir di dox li nga xam ni moo jëm ci walu kaaraange tan tey jii di dimanche mu bàyyi lepp ñëw taxaw fi ànd ak xale yi def un parcours sur le terrain parce que pédagogie boobu dom bobu moo ma neex moy de nga euh, la pédagogie de la pratique moy nit nga and ak mom ci tali bi dox ay kilomètres won xalé yi panu won xalé yi passage piéton won xalé yi li nangu ak lu ñuy aaye ci kaw tali

ci la ñuy essayé lu nekk dawal ci kaw tali bi football ci kaw tali bi dàqante ci kaw tali bi donc yooyu yëpp dafay nekk yoo xamante ni tey jii waxtaan nañ ko xam nañ cest di dire ku dem ci accident yem ci naka nga war a def gis nañ tamit ni ñoom xàmmee nañu panneau yi xam nañ leen signalisation lan la te loolu tey ji am nañu bëree bëree bëri boo leen ko laajoon ci ay adulte dégg nga duñ ko xam loolu nag moo indi ci yeneen réew yu mag yi dégg nga ñu dema dem ba wàññi seen accidentalité routière ndax boo ko bëggee dindi te jaaraloo ko ci xale yi ba nga xamante ni dañ koy nekk nekk ay réflexe ci ñoom dégg nga loolu day nekk loo xamante ni lu jafe la ndax nit ki dañ ni l'enfant euh, euh, apprend par imitation donc xale day gis ñu def mu roy ci loola la muy roy nag yàlla na nekk li baax ak li gën ak li dëppoo ak jamono ci tali bi ci ma yaatal xol yi moo ñuy musal metti na lool nga tàggoo top, le top, le top Dila joy tai chi Yai joy Bajan joy Arito Ban oh. numéro la ñuy police police kañ nga koy What are you amee accident wala yu mel noonu sapeur kañ lañ koy woo bu amee accident wala yu mel noonu pour mu dimbali ñu léegi ban numéro la ñu war a woo instant bi pour ñu yeewu ban numéro la ñuy woo fi mu toll nii nañ ko jeexal kon ba 18 ayca. journée bu tey bi suñ ko mënoon di baamtuwaat doon la gën si ñëpp parce que quand on parle de mobilité mobilité du oto rek oto képp kuy utiliser tali bi ak képp kuy dox dox ci trottoir bi ci mobilité bi nga bokk. lii du tey lañ ko du tey lañ ko mos a organiser organiser woon fi weer yële passé uh, liberté 6 ci école lañ ko defee woon donc uh, mënuñu def lu lu gën lii lii moom ñëpp ko soxla mooy sécurité bi mooy uh, mooy aar ñi xamal ay doomu aadama nga yeeb ni yow ni yow gaar gi yaa koy dawal tegi sa tànk waaw ñun dañoo nekk ay acteurs de la sécurité routière donc fépp fu ñu dégg événement boo xamante ne day jëm si wàllu sécurité routière suñu devoir la ñu ñëw teew si loolu moo ñu fi indi en plus euh, apprentissage dafa bokk ci benn comité bu tudd comité sécurité routière en entreprise xam ne dafa ëmb kuréel la boo xam ne dafa entreprise yu bëri yoo xam ne dañoo boole seen doole ngir di yëngu ci sécurité routière moom ñu bokk ci loolu moo sabab suñu teewaay fi mu bu mel nii mooy ñu ko ñëpp waxee. lu ñu war di lu ñu war di bëri la ndax nee nañ xale ci bu muy ndaw lañ koy jubanti te nee nañ garab ci bi muy ndaw lañ koy jubanti donc bu ñu bëggee euh, ëllëg accident yi mën lu wàññeeku ñi ciy loru tamit wàññeeku nañu di xam-xam bi ci xale yi loolu sax bokk na ci li nga xamante ni bokk na ci politique yi nga xamante ni euh, autoroute de l'avenir dañ koy def ndax am nañu ay école yoo xam ne dafa wër autoroute bi yoo xam ne dañ ko tuddee ay club sécurité routière yoo xam ne at bu nekk dañ fay dem di fa di fa di fa di fa jàngale di fa jàngale sécurité routière ngir mën a ñaax xale yi ñu xam nan la ñuy comporté woo si tali bi nan lañu war a doxalee si tali bi seen parents yi yor oto aussi nan lañ leen di sensibiliser à que ñu mën a respecter la code de la route xam aussi ban taxawaay la ñuy am ci tali

Euh, qui est un excellent organisateur. Euh, c'est un jeune qui, euh, qui, s'implique depuis 10 ans dans la formation, dans la sécurité routière, et il le fait sans moyens. Il le fait sans moyens, sans appui, et de manière totalement désintéressée. c'est pour ça que nous avons décidé de l'accompagner, parce que aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent pouvoir se baser et se comment, utiliser ces jeunes-là, toutes ces associations, parce qu'il n'y a pas que celle de la mine, il y en a d'autres également qui s'impliquent dans la sécurité routière. Et la sécurité routière étant un enjeu de santé publique, il est absolument indispensable que les pouvoirs publics s'impliquent et impliquent toutes les forces qui s'activent dans ce secteur. Ma venue aujourd'hui, c'est l'enjeu, de fait de voir des jeunes, comme l'a dit le doyen Longo avant moi, des jeunes qui se sont euh, réveillés ce matin, qui auraient pu faire la grasse matinée, qui auraient pu aller à la plage, qui auraient pu jouer au football dans la rue, euh, que cette euh, centaine de jeunes, comment dirais-je, répondent à l'appel de l'association L'apprentissage pour cette matinée de formation et de sensibilisation à la sécurité routière. Donc, lorsqu'on voit pareil engouement, on ne peut pas fermer les yeux et faire autre chose on est obligé de nous impliquer également dans la mesure où nous sommes sensibles aux euh, problèmes de la sécurité routière quand on sait que rien qu'au Sénégal, euh, on compte à peu près 900 morts par an, ce qui est inadmissible. Euh, ça nous coûte également 8% de notre PIB. Donc vous imaginez tout cet argent-là qu'il faut investir dans des frais de santé, qu'il faut investir dans des frais de comment dirais-je, de deuil, euh, d'obsèques et autres, euh, c'est catastrophique. Et donc, il faut qu'il y ait une réaction. Cette réaction-là, euh, l'ONU l'appelle de ses voeux, puisque depuis 2010, l'ONU a lancé, par le biais de son secrétaire général, une décennie d'actions visant à réduire de, de 50% la mortalité routière dans le monde, parce que ce n'est pas qu'un phénomène sénégalais, c'est un phénomène mondial. Et euh, en 2020, ils se sont rendus compte que c'était insuffisant, il fallait encore poursuivre les efforts, et donc une deuxième décennie d'action a été proclamée et qui court jusqu'en 2030. Donc nous sommes en plein dedans, et aujourd'hui la sécurité routière, c'est l'affaire de tous, euh, les associations, les groupements, les individuels, tout le monde a son mot à dire parce que chacun est acteur de la sécurité routière, qu'il soit piéton, qu'il soit cycliste, qu'il soit automobiliste, qu'il soit conducteur de charrette, euh, chacun a son mot à dire dans la sécurité routière. C'est ce qui motive ma présence ici aujourd'hui. J'en appelle au pouvoir public euh, pour qu'il puisse s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité contre, routière. Il ne faut pas mélanger. Euh, il y a des acteurs qui sont sur le terrain. Ce sont des associations, ce sont des individus. un Lamineba, par exemple, est totalement désintéressé ces jeunes ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être outillés, ont besoin d'être, euh, euh, comment dirais-je, euh, accompagnés de manière à atteindre les objectifs qu'on a fixés au niveau mondial. Si chaque pays fait sa part du travail, en 2030, on parlera de sécurité routière, on pourra dire qu'on a atteint l'objectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on en est encore très très très loin.

bu ngeen xoolee presque yeneen édition yëpp daan nañ ko defee ci biir dakaar yi et consort mais cette fois ci dañ ko génnee indi ko fii nga xam ne mooy cité Apix Tivaouane Peulh liñ ci doon jéem mooy gis ngeen ko tali yi macha allah fano yaa ngi fi ba tax na programme bi niñ ko déroulé dañ ko essayé adapté ak li nga xam ne mooy li nekk ci zone bi moo tax ci suba si bi ñu tàmbalee ngeen gis dañoo def benn marché de sensibilisation waxtaan ak ñoom ci panneau yi wan leen li nga xam ne moo nekk ci panneau yi buñ ci jógee gis ngeen formule bi ñu ko defee dañu doon jàngalaale xale yi waaye ñuy foowaale ba tax na moo tax bi ñu doxee wane panneau yi ba pare dañ leen tegal ay oto yu ndaw ñu jël ko nekk di dawal ñoom itam pour basé wu ci liñ leen expliqué ci tali bi xool ba xam ndax ñoom bu ñuy dawal dinañ bàyyi xel ci panneau yi loolu benn la ba ñu jógee ci loolu ñu ngi dugg ci biir saal yi def li nga xam ne mooy coloriage pour xale yi ci biir coloriage yi bu ngeen bàyyee xel tamit gis ngeen ni dañoo defar ay panneaux yoo xam ne pour traverser piéton la mooy fa piéton yi pour wan xalé bi ni ko boo colorier lii feu bi bu verree pour piéton da ngay traversé bu fekkee dafa rouge da ngay taxaw etc cetera bi ñu jógee ci lool tamit jéem nañ épeleloo ñi nga xamni ñoy ñi xawa yamama yi pour nga xamni dinañ xam mots yi ak seen définition ndax le fait que ñu koy épelé juum ci ñu leen ciy dimbali ba paré ñu joxé définition bi ñi nga xamni ño tok ci salle bi amana amna mag ñu ko xamul dimbali na leen ñu xam ko ci à travers jeu bobu ñuy def légui nak bi ñu jógee ci loolu ci lañ tëjee ak li nga xamni moy tapiru ci tapis routier bi benn jeu la boo xam ni panneau yi ñoo ci nekk ak phase secourisme léegi nag yow case boo jël rek dañuy xool ay questionnaire yoo xam ne c'est en rapport ak soit forme ak couleur de panneau boobu wala ndax secourisme la amal rapport ñu posé la ci ay questions ba tax na tey journée bi liñ ci gis moom daanaka euh, tënk na lépp ndax secourisme bi laal nañ ko panneau yi laal nañ ko ñi nga xam ne xamuñu woon xëy na numéro sapeur li may tooñee gars yi daanaka mag ñi nga xam ne ñooy toog seen kër léeg war a dimbali xamuñu lu ñuy def ba dimbali li ñuy wax position latérale de sécurité yooyu yëpp wane nañ ko tey ci biir sketch yi nga xam ni amal nañ ko fi kon loolu nag moo nekkoon bis bi li nga xam ni loolu lañ ci amaloon li nga xam ni moo nar ñëw ci kanam te ñu am yéene bi bëgg ko fas yéene ko def mooy maanaam daj daj daj Sénégal yëpp bu ñu dajee niveau national ba pare jéem a xool bu ñu jàllee niveau international ndax xam-xam du doy

boba borom bi mën la sutural ba nga xamni yenn yi dula dula dula dula dula dal ci yoon kon li nga xamni nak moy suñu mbeubet loolu la jema daj ñep ba nga xamni accident yi dinañ ko fexé wàññi ni mu gëna ni mu gëna démé ba gannaaw ñu ngi juk magal gi dañuy ñaan kep ko ci xamni yaangi paré pare pour juggé sa kër dem ca dëkk bu sel ba pour magali liñ lay ñëk soñu moy nga xamni bërepp ba du arrière fa mu ne fa lay taxaw kon jarul rawante pour jéem a yegg ji foofu ngeen daw ndànk ànd ak dal ñaan borom bi def ci sutura nga xam ne nag bu ñu fa jógee ci kàttanu borom bi li nga xam ne ñoo ngi koy doxal ci liggéey bi dinañ koo mën a yeggale ci jàmm ndax mën naa ni liggéey bi tàmbale nañ ko waaye amul arrêt xëy na nag ñaan borom bi gën ñëw doole sutura melancholy. Money in myself, met in a doll that I go.